خذ نل ورا يا ربي فو قلبارا يور ريوني mu mel ci xol yi ak tawat ya sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya sabab ndigal bàyyikoo na ci Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mansour xalif général des Tidianes wàcc ci njaboot gi yépp yegsi ci ndigalu sëriñ papa jibril jéen mu sunu maam maam El Hadj Ëmmat Lamine jéen fa tabarakallahu nga xam ne yéen ñépp takk ngeen ne ziar général mooy dimanche le 12 mars incha allah te mbokk mu baax ma sunu sëriñ ba sunu waaja sunu jàmbaar ja yaakaaru diine ji yaakaaru tarixa bi sëriñ abdul aziz al amin radiallahu anhu defoon na ne ziar général bu ñu ko jàppee dimanche samedi ba ca topp mooy gàmmu kër El Hadj Oumar Lamine Diène gàmmu googu nag ki ndigal la fa mu daan jugee ci kër Cheikh Seydi Hadji Malick wàcc ci kër Cheikh Seydi Aboubacar radiallahu taala anhuma ñëwaat na wàcc ci imam Papa Djibi Diène ak njaboot gi yëpp ak daayira bi yëpp jàpp nañ gàmmu gi incha allahu taala samedi le 18 mars ñu bàyyi mbokk yi incha allah wax leen programme bi ak bis bi nu muy tëddee. gàmm gi mën nañ ne fanweeri at a ngi nii mu ngi nekk ci loxoy Mawlaay Abdoul Aziz Sy Al Amin ibnu Cheikh Seydi Aboubacar Sy waaye bu ñu xoolee ci programme lu mat 15 ans ngi nii moom moom Mawlaay Abdoul Aziz Sy Al Amin moo ko dugaloon ci programme xadara Tiwaawan 15 ans ngi nii ginnaaw bu ñu xa bu ñu ziar générale ba pare rek samedi ba ca topp mooy doon gàmm gi ren nag mu tombeek ni ko Bac Diouf waxee le 18 mars incha allah ñu ci woo ñëpp dale ci autorité religieuse yi autorité coutumière yi dale ci président de la république Macky sàll ak képp ku nekk ci gouvernement bi ak assemblée générale autorité religieuse yi bàyyi ñu kenn bépp fu général nekk rek ñu ngi la ciy woo fépp autorité coutumière nekk ñu ngi la ciy woo ci gàmm gi nga xam ne bii ba mu dalee am ba léegi ëpp na suñuy at mën nañu muy dem ci plus de 75 ans waaye bañ mu nekkee ba léegi ñu ngi ciy nap nabi di ci góorgóorlu. ne gàmmu cosaan la sunu maam El Hadj Amadou Lamine Diène nekkoon premier imam ratib grande mosquée bu Dakar yàlla dogaloo nit ci ndigalu sëriñ Serigne kër si la ko taxawalee woon muy dox et ba mu mujj ci loxo Serigne Abdou Aziz Al Amin nga xamante ni moo ko woolu ba mu ñëw dénk ko gàmmu gi ne ko suma teew ak suma gannaaw ndax di ko mën a taxawee. sëriñ Abdou Aziz Al Amin taxawee loolu ba tey mu bàyyi koo fi teg ko ci loxo doomam di sëriñ Habib si ibni sëriñ Cheikh Ahmed si Sy Al Maktoum radiallahu anhu moom it moo koy taxawee fa tabaarakallaahu kon nag di ko ànd ak sunu mbokk alxaaji Duud Kenn Mbay ak ay rakkam yëpp kon ñu ngi ci woo xadara Seydil yëpp di ci woo xadara sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu di ci woo instance yi nekk ci biir kër gi yëpp dale ko ci daayiratul kiram euh, jaar ci koskas jaar ci mouvement yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir kër gi yëpp muy muxtafina moo xam fédération des daayira tidiane Dakar et banlieue coordination des daayira tidiane et daayiratul ahmadiya daayira yi nga xamante ne ñoo wër gël tàppe yëpp yëpp ak Médina Fass ba Fann ok ñoom ñëpp ñu leen ciy woo. di leen yëgal suñu gàmmu daayira elhage Amal Lamine jéen si turu Adja Ndeye Diop Dame présidente d'honneur daayira bi ak Adja Ndeye Diouf présidente daayira bi ak Adja Mam Ngoone Diène si turu jigéenu daayira bi ñu ngi leen di oo suñu gàmmu di ko yëgal. soxna kalambay ak mboolem xadara sëriñ Babacar si fàttewuñu nag suñu mbokku lébu yi commencé ko ci ngox wakaam yoof dem ba tubaab jalaaw ñëpp bàyyiwuñu kenn yeen bari ngor wakaam yoof ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen di woo ci suñu bisi maam bi daayira Gueule-Tapée yëpp Fass Colobane di si jiital euh, première dame soxna Marème fay sàll di si yëgal diaspora bi yépp suñu gàmm gi suñu bés bi bésu amalami jéen bi di invité autorité étatique yi wax na ko le président de la république jaar ci son premier ministre comme ni mu ko waxee assemblée nationale ñu ngi koy yëgal le maire de la commune d'arrondissement di Abdou Aziz Paye tabaarakallah nga xamante ne moom ci lii la bokk ci daayira bi la bokk ay woy juróom ci la ñu bokkoon kon nag ñu ngi koy woo di woo conseil municipal bi yëpp. dégg ngeen woote bi mooy gàmmu islamiyeti at tijaniyeti subaanul abraar bu sunu maam maam El Hadj Amat Lamine Diène xam ngeen ne ziar général date spéciale la ci kër Cheikh Seydi El Hadji waaye tamit bis bii Serigne Abdoul Aziz Al Amin moo ko jëloon dugal ko ci calendrier national nga xam ne bu ñu defee ziar général dimanche samedi ba ca topp mooy gàmmu kër El Hadj Amat Lamine Diène ndax El Hadj Amat Lamine Diène sagu ndakaaru la El Hadj la Lamine Diène sagu réew mi yépp la kon samedi la le 18 mars incha allah ci buntu kër gi kan mooy waxtaan mooy Serigne Abib si ibnu Seydi Cheikh Ahmed si Al Maktoum fekk góog El Hadj kenn mbay mu bàyyi mbay donde mbay nga xam ne léppam fii la woon ci kër El Hadj la Lamine Diène ba muy ànd ak moom di saare ji Cheikh Seydi Aboubacar naan ko nag bari tànk aayu fa mbay kan nañ dem siyaare ji mbay kon loola nag di dox ba tey jii ñaar ñooñu nga xam ne seen lépp kër El Hadj Amat Lamine jéen la incha allahu taala ñoo ko fas yéene waxtaan kon mbokk yi nee nañ ñu ngi ci woo ñëpp waaye kër El Hadj Amat Lamine xamoon ngeen daara la woon bari na ay ma yoo xam ne fii la ñu gippee fii la ñu jàngee lépp fii lañ ko amee mboolem njabootu ay ma yooyu ñu ngi leen ciy woo kon nag fa tabarakallahu ñu bàyyiloo leen ko xel samedi la le 18 mars ci buntu kër gi di kër maam élage Hadj Amat Lamine Diène ci ndigalu kilifa yi ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm jugal ya ñul ju ilay ka ilay ka buhuran ya safi ulanaati weeru day seeti gannaawi borom daya